sara da nga janloog sa bir yi deret ji jaar da nga janloog sa sibir ci janloog ñam bi ci sa biir ñëg mi da nga janloog aduna bepp nit ñi ku ci nek fa mu joge fa mu jëm ñi nelaw ak ñi dox yi ñi liggey ak ñi waxtaan da nga yu yep da nga asmanu ñaar da nga suuf arasa kursiyu da nga am ci buru bo xamni bi da nga defene sa ci ñew nga de fofu فورنا أم لا خطلي كان نتي أهل الله لي دون ملائكة يمنون كو قطب الخوت ولا خطلي ولا نداوم وقت وا خمنا ويس نريد جنت بجيس محمد صلى الله عليه وسلم جهرا تلو خمنا لي دخي ولي جنت غسوغ جيغ مقام يويو أيوه. ويس نغا علم اليقين ويس نغا عين اليقين يانغ دوغ تي حق اليقين sa diggante tabaraka wa ta'ala dara doxu ci ci diggante ba bu fekkene amon nga serigne aram na nga dox jëm ci mom ndax suñu borom dana fiir ci sa xol ba li nga xam ne moo doon sa moyen maanaam li doonoon sa wasila moom nga jaare woon ba àgg ci moom léegi da nga koy wëcc suñu borom dana la fàtteloo lépp lu dul jëmmam jëf boo déggee ñu ne Seex Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu ci géej gi ñu ko daatan jox wirdu xaadir woowule nga xam ne daf ko jëloon ci ay doom aadama jëloon wirdu tijaan jëloon wirdu sanseli yooyu yëpp suñu borom daf ko ko fàtteloo ngir fiir bu mu ko fiira nanguwul nammul nanguwul benn jaam man ko ne maa la defal lii ba mu fàttee loolu lépp ba nga xam ne doomu adama defalatu ko dara dara dara dara suñu borom ci boppam tabaraka wa taala yebal sayyidina Jibril mu jox yonent yàlla Muhammad sallallahu taala wa sallama wirdu yooyu mu jox ko ak secret suñu borom doon loo ko gaañoo ñu ñëpp ak secret bi newoon ci wirdu yooyu yëpp nga xam ne wirdu wu ci nekk secret ba mu ngi nëbb la mu woon ci benn baat baat boobu nga xam ne ci la ñuy lim lëm secret ba ni nga xam ne noonu la ñuy lëmee saa ak ajjuma si nga xam ne moo gën a màgg ci jamonoy adduna nga xam ne loo ca ñaan mu nangu suñu borom nëbb ko yenn ci jaam la ko xamal naka noonu mu nëbb laylatul qadar ci biir weeru koor ak ñu ci ulama yu wuutee nga xam ne ku ko xamoon sa mbir daal di jub àdduna ak alaxira la nga xam ne noonu lay dëxëñee ci biir wird yëpp ay secret yi secret bu ci nekk ci benn baat baat yooyu la suñu borom tabaraka wa taala xamal ka ko xamal goo xam ne gii du am fu mu tàmbalee du am fu mu yem boole koog doon loo ko gaañoo ñu mu sañ joxe seen wird niñ ko sañoon a joxe mu booleel ko ci maxuus mu di wird woo xam ne moom dong lañ ko jagleel ñeneen ñi amu ko nga xam ne boo jàppee wird woowule am nga yaa ngi mel ne ko jàpp wird yooyu yëpp ñu jox la bu ci nekk la lam jagoo woon ba noppi booleel la la nga booleel la ca la nga xam ne moo nekk ci maxuus buñ nekk wird sàng ko jàpp boo ko bàyyee da nga yàqule fekk na ba ko jàppee ba nga ko bàyyee da ngaa jàpp loola teg ca leneen teg ca leneen teg ca leneen waaye bu fekkee loolu am na yàqule mu ko da ngaa dolli ko waaye wàññi ko woo suñu borom def ci moom yërmande joo xam ne dafa yërëm jaam ñëpp kenn ku ci nekk mu yërëm yërmande ji law jëla sa ndey ak sa baay yërëm itteem di xet yi leen rek nga xam ne àgg na ci fanaa u al fanaa u fillaahi ba dem ci baqaa u albaqaaw bi sifaat jóge ci dem ci albaqaaw bi zaati ba àgg ci tamkin nga xam ne weesu na xawfu raja weesu na albastu wal qabdu weesu alhaybatu wal unsu nga xam ne tamkin amatul benn xaal ni mu mel mela la woo xam ne boo ca àggee da ngay dellu siwaat li tax ñu ne yonent day wàcc wàll yi day yéeg lan mooy maanaam yonent day wàcc wàll yi day yéeg yonent nam gën a niroo nit ñi nam gën a niroo nitu kese la gën a mate yonent ndax nit ñi mën koo roy lepp lu mu def nit man ko man ko def wàllu dañu ne kaa inun baa inun lay lambo